الشيطان maa ngi yëkkati suma kàddu muy kàddu ñaan ñaan gi ma jëmale ko ci kan ma jëmale ko ci Alaaji Omar Diop di ñaan yàlla tabaraka wa taala fa mu nekk ci barzaq yal na yàlla yokk leeram di wëlbatiku di ñaanal jataay bi ndax jullit fu mu ne ak chrétien di ñaan jëme ci yàlla bëgg na yàlla defal ko jàmm bëgg na yàlla yokk suturaam bëgg na yàlla yokk am amam ak man-manam loolu yépp yàlla nañ ko yàlla defal tey jii ma ñëw taxaw fii ci cekkeer sama xel dafa daw lu sori ndax Baye Omar dafa am bind bu ma jàngaloon daf ma ne ay meru ku naxul nit ñi yàlla defal la bëgg nee na ma yàlla doomu aadama yi la am ci suuf nee na ma topp yàlla ak liggéeyal yàlla bokkul mu ni ma topp yàlla mooy def ibadat yi maa ngi julli maa ngi woor maa ngi génne azaka maa ngi dem Makka maa ngi def baatu shahida nee na topp yàlla la liggéeyal yàlla nag mooy liggéey luy jariñ doomu aadama yi mu jàngal ma ko ma mokkal ko loolu moo tax bokkoon na ci samay soxla fii ma tuddee zone sud zone bawalu Mérina Ndaxaar ñu am fi poste de santé ndax poste de santé bu ñëwee képp ku dëgg ci gox bi te tubaab yi wax senegal wax ni nit warul dox juróomi kilomètre te yëgul fu muy fajoo kon lii góom la woon ci Mérina Ndaxaar góom nag li ma ci xam mooy bu niwee dañu koy faj faj bi nag mooy ma fexe ba fii am poste de santé ma ne ku nekk mënoon nga ko yeeyoo poste bi mënoon naa nekk tàbbi mënoon naa nekk xëy ngisam mënoon naa nekk cuunel mënoon naa nekk kër jaaje waaye fii dafa gën a diggu fi gën a diggu olof dafa ni ku gën a jigéen yaa gën a yey mani ni fu gën a diggu moo gën a yey loolu moo tax poste bi ñu def ko fii ci Cekkeen waaye bu ma ko fi defoon rek loolu El Hadj Omar Diop rahmatullahi alayhi moo ma ko de. li mu moom mooy tur bi parce que moom laa koy tudde incha allah waaw bu poste bi nekkoon feneen itam Omar Diop lay tudd waaye yàlla def na nag mu nekk cekkeer waaye bu paree tableau bi nag ñépp xam ni Alaaji Omar Diop lay tudd ndax xelam ak jëfam ak bokk bu mu bokk kajoor jar nañu tudde ko ndax nit koo xame ni foo ko gis mi xelam mu rafet soo bëggee mu jariñ la soo bëggul te toog ci wetatam mu wax nga jariñu foo ko fekk muy dem nga xam ni El Hadj Omar Diop mi ngi dox ci soxla njaboot gi kon kooku nag il faut ma delloo ko njukkal tuddee ko poste bi ma ne ñëwuma pour diggee poste bi li koy defar dafa nekk son poche waaw waaw doom ji koy defar dëkk ci tund wi di tudd di jàll sec moom laa jëkk a xam di jàll kañ ko tuddee moo ma jëkk jàppale ci biir Kajoor yàlla li mu dajale moo moo ko xam moo ma jëkk a jàppale ci biir Kajoor nekk Kaolack di ma téléphoné naan ma seetil diw seetil diw Cheikh si sax moo ko xamee rijaal a tax kon dama sant yàlla su ma demee bay def fii lenn ñu ne ku koy dabar ñu ne rijaal la man joxuma ko ko de Omar ma male moo ko jox bu ARD ak ñamu nekkal parce que sob sotowuma mais dama ko bàyyi mu def ay këyitam mu leer ñu tànn ko ñépp bind mu bind gën cee baax lañu tànn ko sotuma de sotlewuma ko nee nañu nag domp ci sot la bokk waaye dompuma kon nag ma tàmbalee fi ma waroon a tàmbalee mooy nuyu nuyu sëriñ Serigne Abdou Mbaye Serigne Abdou mbay bu ñaddaati man suma ko jiitalee su ma nuyoo dina xam lu tax ndax li mu saf ki ko macc ko xam nuyu naa ko ziyaar naa ko nuyu ahlul Mbàkke yi nekk ci tànt bi yëpp nuyu mbokki jullit yi fi nekk yëpp nuyu kilifa diine yi fi nekk yépp ci gox bi nuyoon nag ñu bari sëriñ Bas jóge na fi léegi gis naa sëñ Moustapha Ndiaye bu joor gis naa Alaaji Mbàkke gis naa sëñ Dam Mbàkke ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay Pape Gadio gi mi fi jógee léegi ak sëñ Moustapha Niang ñëpp nuyu na ndax nag bu ñu lëntalee ñoo ñuy gindi fas'alu ahlal la taxlamun kon léegi ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di nuyu nag responsable yi fi toog yëpp jiital ci Alhaji Papa Dieng Alhaji Papa le directeur général de la Sonacos maag moom ñu bokk dëkk Kajoor ku ne gis nga ñu ñu ànd ci campagne électorale législative yi dugg Pekes ànd dugg Mérina ànd dem ci biir département kon bu ñëwee tey ñëw di ma wéttali si fii war naa ko beral njukkal jëkk ko tudd Pape Dieng maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu suma mag ji nga xamee dafa yónnee léegi di Talla Diouf honorable député yónni Cheikh Ka mu wax wax ji muy wax xam nga politique am na mais mbokkootam dafa am nit su ngeen àndul même ci politique jox ko cëram rek mm-hmm. soo ko fekkee te mu nekk sa mag jox ko cëru mag moom ak maxafal ak keneen ku mu mën a doon fu ma leen fekk cëru mag laa leen di jox waa nag mënuma téye nag ay laab di leen wëlbati man nag maa ngi ci yoon di liggéey ku ñëw ànd ak man ñu liggéey réew mi loolu rek laa soxla kon taala sant naa ko gërëm naa ko su ma mag la nag nee na ma waxal ci mbooloo mi maa ngi ci sa kanam maa ngi sa ginnaaw maa ngi gauche maa ngi droite foofu la mën a yem mais man nangu naa rakk gi kon maa ngi ci kanam maa ngi ci ginnaaw maa ngi gauche maa ngi droite fu mu ma soxlaa rek ma maa ngi nuyu les honorables députés tàmbali ko ci madame Fatou Sène la députée du département de Tivaouane mm-hmm. saluer Madame Oulimata Mané, députée de Bignona. Saluer mon frère et ami Demba Keita, député de Ziguinchor. Saluer le député maire de Ngéhor, mon frère Pape Songo Diouf. Saluer Mamadou Ouribaïlo Diallo, le député maire de la commune de Velingara, et le président Moussa Sabali, qui est le président du conseil départemental de Médina Yoro Fula qui est député à l'Assemblée nationale moo taxawoon fii wax ak yéen le Sénégal a besoin d'être construit pour construire un pays il faut avoir une vision cette vision est une vision du président Macky Sall déclinée dans le qui consiste à d'abord régler la question des investissements structurels dans notre pays et qui parle d'investissement structurel parle effectivement de résorber la fracture qu'il y avait entre les villes et les campagnes. Et ça, c'est un pilier important de la politique du président Macky Sall. C'est pourquoi, en cinq ans, le président de la République a construit plus de 110 centres de santé, 11 hôpitaux et 265 postes de santé. Et je considère que Tcheker sera le 266e poste de santé ici à Mérenda. Le président de la République est un homme de conviction qui aime son pays, qui a une grande ambition pour son pays. et qui est courtois, qui est discret, qui est efficace et qui est compétent. C'est la raison pour laquelle nous allons travailler jour et nuit, qu'il pleuve ou qu'il vente, pour qu'il ait ce deuxième mandat tant mérité, pour qu'il puisse parachever les actions qu'il a déjà accomplies pour le bonheur des Sénégalais. Ah, man naa làkk tubaab mais nañ wax olof waaw mais télévision yi ñoom dañ lay force rek mais su dul loolu man kaaj kocc rek maa ngi ci kocc kon nag maa ngi nuyu ñëpp di nuyu El Hadj As Diagne le maire honoraire de Mekhe responsable boo xamee dafa taxaw nii ay melu de man génne woon naa sama loxo ci politique waaye nag yow tax nga ma jëlaat ko dugal ko ci biir foo nekk maa ngi sawet suba ngoon loo dugg dugg naa ci alaaji Asdiagne ba pare def ko maa ngi nuyu le président Maxa Laman moo ko fi représenté maa ngi nuyu juróom benn milliard wote nañ ko démb ci minuit juróom mbenn milliards yooyu yëpp ci yenn lay ñëw ku ci nekk dinañ la jox sa te itam du yàgg décembre la ñu wax au plus tard le 15 janvier ku nekk di nga jot li nga moom parce que assemblée moom bu voté rek dañuy dogal te loolu bokk na ci li ma surveille maa ngi nuyu. mon frère et ami Tabaski Fall di nuyu madame la haute conseillère Mariama Ndiaye au conseil des collectivités territoriales ak rakkam Jaxu Ndiaye bu ngaay fu ma nekk ñu fekk ma fa di leen nuyu nag yéen jigéen ñi di sargal soxna Guèye ci waxtaan bi mu wax fii ak lu am solo penda li mu wax mbeen man dégg naa la bu baax waaye yéen jigéen ñi dinaa leen jàppale dinaa leen jàppale incha allah parce que li ngeen wax fii ak engagement bi ngeen jël su ma leen jàppalewul ba ngeen gis nii def naa benn discrimination def naa benn domp ci suuf kon bu ma fi jógee da ngeen may xeeb dinaa leen jàppale. Oh. pour ndaw ñi nag Daouda li nga wax dégg naa ko man awma problème su ma dee dox bu ma juumee téye leen ma nee leen ma da nga juum bu ngeen ma waxee fi ma juumee rek ma wëlbatiku ànd ak yéen ma juste man awma problème boobu à chaque fois que de besoin quand je suis devant les jeunes je prends en compte leurs préoccupations qui sont des préoccupations de formation d'abord, mais aussi des préoccupations d'insertion, de formation professionnelle et d'insertion à l'emploi. donc maa ngi ak yéen su ngeen ñëwee ak fu nit mën a jóge soxla ma lu dul jamono yi il faut nag ngeen bal ma àq ma wax ak Kajoor président dafa am lu ma dénk te bi ma koy dénk ndongo laa mokkalu ma ma dem war jiite comme ni ko Moussa Sabali waxee téeméeri député ak ñeent fukk ak ñaar juróom-ñeent mais il faut que ma ma tëju lolu di jàng waaye man lu ma xalaat suba ba ngoon kajoor a ngi ci amul benn man lu ma xalaat lu ma nar a am te bokkuma ko kajoor yàlla bu ma ko te man kon kajoor rek laay sama rythme sama xol. kajoor la j'ai le Kayor dans le cœur président nag moo sañ wax ni le Sénégal dans le cœur parce que moom dafa jiite réew mi mais man tey sàcc naa baat boobu ci moom j'ai le Kayor dans le cœur man lu kajoor soxla maa ngi ci su ma ko amee rek indi naa ko su ma ko amul maa ngi koy lijjanti yéen lu ngeen di waxati ku indi poste de santé dina indi yoon dina indi courant. kooku c'est une promesse jarul ngeen koy li indi poste de santé bi ci laay sukkandiku indi yoon ci laay sukkandiku indi courant ci lay sukkandiku yokk ndox mi lu ne nag mën nañ koo xal ay meru ba ni day digge rek wala day politique waaw lu ne mën nañu ko waxal ay meru ba mu des loolu ah, en tout lu ma wax yéene naa ko wallaahi te lu ma wax summi naa suma tànk jël naa suma fayda yépp pour loolu mën a nekk te xam ngeen ni nag am na loo xamee ni bu ma ci taxawee di ko ñaan te ki ma koy ñaan kenn la ginnaaw yàlla mooy le président Macky Sall su ma ci xaree suma tànk tubéy bi may ma ko kon tey dig naa leen fii ni leen dinañu tracé yoon bi dinañu indi courant bi dëkk bu mu romb nga am ci ba frontière fu ngeen ko soxlaa ñu yóbbu ko promesse ay maru la bariwul ñu ko sañ de waaw nga wax ko ba pare ñépp ni dëgg la bariwul ñu ko sañ li ci des nag mooy ñu ànd moo tax fu ma toog maa ngi tàllal suma loxo doomi kajo ni leen li xàjjatloo amul solo ku jiitu nañ ko bàyyi mu jiitu ñu topp ci parce que jiitu am na fu ko yàlla di yamale fu ko yàlla yamale keneen jël waaye ku bëgg jiitu yàlla nag yàlla téye la yàlla dafa am nu mu bindee nañu ko nangu d'abord nangu mooy nangu ni yàlla mooy dogal lu ko soob ci jaamam zalika fadlillahi ci man yasha wallahu zul fadlil azim zalika man yàlla lii fadlulaa xéewal la maa koy def ci ku ma ko soob ku ma soob laa koy def mhm. dama ko def ci keneen te du tàggu kenn seetul ji jirim seetul ku lompoñ seetul ku rafet seetul ku ñaaw lu ko neex lay def mhm. yàlla faalul li ma waa léegi bu waxee loolu ni ay meeru la fii ci meeri Ndakaar mais ñëw ànd ku ñëw rek loolu moo tax c'est important suñu toogee ñuy waxante dëgg ay nit mënuñu bokk kilifa te ni mënuñoo ànd bu dul bu ñu àndul am na kuy wor ay nit mënuñu bokk kilifa te ni mënuñoo ànd bu ñu àndul am na kuy wor am na koo xam ne la muy wax nekkul ci moom waaye nag invitation bi li ma koy yaatal yaatal na ngeen xam ni ñeme naa fi ma jëm incha allah ñeme naa fi ma jëm de waxuma pour ragal dama wax pour yaatal waaye bu yaatu amul itam nag ñeme naa fi ma jëm ndax yàlla rek laa yaakaar maa ngi nuyu l'ensemble des conseillers municipaux de Mérina Dakhar gis nga kii bi ma koy def di waxtaan ak Thierno dama ne nañu def rek les conseils municipaux parce que ku nekk conseil municipal rek ci nga bokk parce que bëgguma jël yëf yi féetale ko sama bopp mën nañ ko jël yaatal ko ba ku nekk conseil municipal gis ci sa bopp ñu wax leen ko pour ñu ñëw mais mujj nag ci koo xam ni mënu moon a bañ a mujjee ci moom muy Thierno Gadd Fall Thierno du politicien homme d'affaires la Thierno entrepreneur la Thierno doomu Kajoor la Thierno nit ku ànd ak i mbokkam la ku déggoo ki mbokkam mais ma leen di seedeel ni ba ma tàmbalee dugg ci Mérina Dakhar rek tey lépp lu ma mës a def Thierno yëg ko Thierno def na ci alalam te bëggul ma wax ko waaye nag fu ma mës a daje ak Baye Omar Diop lu Thierno mës a def ci man wax naa ko Baye Omar ñu ko dama la koy wax ndax seede baax na bis bii li muy yaatu yaatu sama yoon ci dafa def lépp ba pare jël teraanga ji jox ma noo def lépp jël teraanga ji jox ma waa mais loolu yéen waa Cekkeen yéen waa Kajoor lu ngeen soxlaati Thierno bind na ay lettre jox ma ko ma dugal ko foo xamee ni mu topp ko liggéey ko ba mu ñor mu ni ma kaay ma jox la ko yow da ngay yeggale rek te la ca nekk yëpp moo ko def. kon loolu su ma ñëwee fii cekkeer te waxuma ko kon duma mat li ma war a doon su cer na doon politique ma yàqal ko li ma yor tey tey tey tey tey ma jox ndax dara laaj soxlaw mais bu doon politique ak xam bi ma xam ci moom ak njàmbaar ji ma xam ci moom ak nawlente bi am sama digganteeg moom kon ma summi ko tey jox ko ndax antam na ko waaye malheureusement du politique il faut rek ma pousse ba ca kanam a kanam ba gis ku ma doy waaye léegi nag li ñuy wax ku ngeen àndal ku ngeen àndal wala daa war a jëm ku ngeen àndal koo ah, léegi nag mi ngi naaj mi ngi naaj maa ngi sant bu baax le comité d'organisation xam naa ni su ma santee Daouda loxoom du ci génn dinaa sant jeunes yëpp góor ak jigéen mais maa ngi sant surtout mésamite la presse wax dëgg yàlla la presse locale de Thiès ah man amel naa leen njukkal ndaxte xam naa ni déplacement jafe mais fu ma leen soxlaa fu ma jógee ngeen ñëw ànd ak man kon maa ngi leen san maa ngi leen di gërëm maa ngi mujje nag ki nga xamee ni tey buñ fi mënee toog mooy autorité locale bi di la sous-préfet de Mérina Dakhar le sous-préfet dafa ne ah xam naa daje bi ngay dem de ni ma la mën a dimbale mooy bu ñuy teg xeer bi rek ma ñëw jàppale la waaye du ma wax ndax xam naa ni daje ba dina am lu fa jib loo xam ne du administration politique lay doon ma ni ko nangul naa la ko waaye man itam may naa ko tey xeer bi na ko teg na ko teg su ko tegee mel na ni maa ko teg liñ ci war a liggéey yépp yemb na mi ngi sama jibe mi ngi sama jiba kon li ci des mooy ma wax rijal ni ko na góor góor xam naa ni nga ko def li ngay def ci sa biir yi mbokk nga koy def kon defar leen ko am na sax lu ma ci yokk parce que ñoom ARD daf ma defaraloon devis ni ma lii la dispensaire beeg euh, niñ ko tuddee maternité beeg yooyu léegi nee naa damay muré te bu ma muré ba pare dinaa def logement loolu maa ko ci yokk ah kuy xalam di ci jàng. waaw waaw. su ñu mel ku la yàqal sa óola laa. su ko defee nag. Baye Bàcc Ndiir maa ngi lay nuyu ah di suma maam yi nag maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax maa ngi nuyu ñëpp waa Kër Madoune gis naa ñëpp rek bu ma cité damay jum gis naa Kajoor yëpp sant naa gërëm naa chef de village yi ah man maay seen partenaire lu ñuy woote mu jëm ci yéen bala muy jóg jaar ci man te jaar na ci man ba signé nañ kon toog leen déglu ma rek te dinaa woote itam dajeeg yéen ba xam mbir mi niñ koy doxale mot jaañ boo jógee ñu waxtaan ci te ngeen nag yeggale seen seen gi a ah, li nga xamee ni importante pour la commune de Médina Dakar Comme vous le savez, dans cette commune, nous avons trois postes de santé qui fonctionnent. Mais on avait des populations qui faisaient entre 10 et 12 kilomètres pour arriver au poste le plus proche, c'est-à-dire le poste de Mérine Dakar. Donc il était urgent pour nous de créer un poste de santé dans la zone sud. C'est ce que nous venons de boucler le financement. Et aujourd'hui, nous allons poser la première pierre. les moyens qui doivent euh, permettre la construction de ce poste sont déjà disponibles dans les comptes de la commune à Tivaouane. Nous allons nous y atteler et réaliser très rapidement ce travail. Je voudrais donc remercier le ministre de la Santé. Je voudrais remercier euh, le, le, le secrétaire exécutif du programme national de développement local qui nous a donné une enveloppe de millions mais aussi le ministère des Finances qui, à travers euh, le BCI, le budget consolidé d'investissement, a pu dégager une enveloppe de 30 millions pour la commune de Mendakar. Je vous remercie. Le choix de Tcheker parce que c'est un site central. Le choix de Tcheker parce que c'est un, un site central qui est le site qui paralyse le plus de villages. Il fallait absolument le mettre dans un site qui puisse permettre aux uns et aux autres de se déplacer avec beaucoup de facilité. C'est le choix des populations et je suis là pour valider les, les, les choix des populations.